ñoo ngi fi nga xam ne moo di hôpital Aristide la daan teg nga xam ne ginnaaw boo xamee ni état bu senegal dafa jël décision wax kan yi dañuy génne patient yi ak lépp loo xam ni mooy personnel bi fi doon liggéey su defaraat li nga moo di ñu daal a li nga hôpital bi indi ci ay changement li nga avons ni personnel bi fi Nous avons comme ni ngeen ko avons hôpital bi dara avons nekk na fi ñu fi Nous ay machine des ak voilà ak mbalit et y a aussi le désordre Il y a aussi le désordre partout hein. vraiment ñi fi avons ñëpp Voilà, vous êtes en direct de l'hôpital c'est Le de Dakar. je pense. De... <laughs> voilà comme c'est vous moment désespéré, une maman désespérée ah kii suba lañ la jox rendez-vous. ñoom dama leen dama ko woo téléphone. kan nga woo. Mazor. Adama. Adama. Adama suba la tey feet la ñoom service bi liggéey mu ne ma ñëwal ñu waxuñu ma loolu de. mu ne ma ñëwal na malade boo boobu suba la

ñoom doon seet fekku leen fi mu nekk situation bu métti trop wala mu war a def intervention wax li nga xam ni moom lay dund actuellement. daa nañ ma wax damay ñëw damay jënd ticket damay jëm xam nga boo ko amul bunt bii sax wa laaxal ma ba xam lu muy wax waaye man fi nekk nii ku ma dimbali daal ma faju loolu laa bëgg ku ma dimbali ngir yàlla ak yonent bi ma mën a faju wante nit na loolu ma nelaw bu bët ba may commencé te commencement ba fii laa ñëwoon fuñ ko yóbbu yóbbu ma ko de yóbbu ma ko léegi ñu bëggoon xam tey ci yow loolu après nan ngay def. fan lañ koy doxal man wér rek laa bëgg ndax fi mu nekk nii da ngay dem ba ah ñi nga xamante ni yaa kii daal dañ lay dañ lay daw ndax poos bi man fi nekk nii ñu bëri dañ maa daw ndax poos bi. information zone si mun nañ Of je daar naartoe post ben ik met de data, dan ben ik van jou. Hoe maar dem nu met de data, doe je laat. Dan vous indi fii wala nu mu demee indi fi amoon rendez-vous bi ngay ñëw maanaam rendez-vous buñ bind ni da nga ñëw fi jour temps man damaa sama kayit yëpp a ngi nii damaa dem ba defalatuñ ma sax rendez-vous dama doon ci kii bii rek portable yii rek la sama sër sër yi daw di ñëw ak sama doom yi di ñëw naan maam tëj nañ la daan jaay nañ ko man leen yéen da ngeen a rëy wax te ngeen a bàyyi wax ji bu leen Macky Sall déggee hmm. ñu ni ma jaay la daan te rek seetaan la moo la indi fii sama bopp sa bopp am say mbokk hmm? amuñu doole amuñu doole amuñu doole hmm. damaa dem sax ba sama poos bi sax bëri dañ maa daw damaa daw ba man awatuma sax suma dëkk bi may ñëw nii ci fajar gi di ñëw. ba ngay ñëw yow kese yaa ñëw kenn indiwu sama benn mag boo xam ne xaritam. Mhm. mu yëkkati deux mille cinq cent jox ma ko ma paas ñëw. Mhm. laaxil Aziz fi nekk nii lépp lu ma def man dong maa koy def man rek maa nekk. yow kese yaa nekk

léegi léegi léegi boobu jamono yooyu benn kayit amu ko carte d'identité sax amu ko mais waa jooju moo ma defaree yëpp mi hmm. sama sama mais pour ma am paas bu ma demee Maroc pour faju sax aw ma ko mënuma koo ma ciy gërëm nag xaw ma ne yéen na moom dem Fadel tamit Fadel Dakar ba ku baax la vraiment ku baax la jàppale na ma gisee ñu nekk moment boo xam ne moom dund ay jafe-jafe yu méttee voilà ñu xool beneen intervention koo qui ça va ça va bien ça va ça va ça y est Ça va. caméraman Ça va Ça va. Ça maître va. Euh, euh, euh, sa première impression parce que Ça

service bi kenn toxalu ko effectivement loolu lañu gis service dialyse defe naa ko gis mën nga ñëw gis ko bi fonctionner normal lal yëpp si occupé personnel bi ñu ngi suivre mbaa donc loolu dalal nañ suñu xel ci service bi ñu dem service bu ñuy wooye euh, oncologie pédiatrique manam xalé yi am cancer fi ñu ne bi ñu demee fekk nañ fa maladie foofu aussi kenn tëju fekk nañ fa maladie ak seeni wayju

après que fii ba le 24 ça sera du am benn déplacement renseignement boobu nga ma jox léegi maa ngi ciy soog jox loolu incha allah am nañ ay représentants Touba danañ dem ci hôpital bi mu mais ñi nga xam ne dañ leen war a jàng

constaté ngeen physiquement que Jigen bi mu ngi fi laaj ngeen ko wax na leen léegi na ngeen interroger directeur bi ci loolu na koy interpeller ci loolu bu ngeen ko laajee normalement dina leen war a jox explication. D'accord, maître sànq ci ci sa kàddu yaa ngi wax kat ni da ngeen a toog jot leen benn document boo xam ni mooy firndeel ni da ngeen dañu war a ay coppite ci hôpital bi est ce que loolu bu ñu ko déggee mën nañu wax ko ni la décision a été prise de façon immédiate et appliquée également de façon immédiate. bon comment commencé nañu expliquer processus bi nga xam ne. Mhm. moo pour reconstruire l'hôpital. mais d'abord en tant que juriste en tant qu'avocat nous ngi une décision formelle pour savez le président de la république moo décision mhm. wala euh, arrêté ministre la décision directeur vous savez décision motivation pour attaquer en justice parce que nous ñu mener action en justice nous danañ mën a action yooyu en justice ñu jotee ci document yi danañ xam mais pour le moment li ñu jàpp mooy euh, li ñu wax ci hôpital bi processus bi mu jaar ba agsi ci décision bi loolu ñuy xaar firnde décision bi en tout cas mais loolu bu nit ñi jotoon explication yooyu comme ni ma wax avant ñuy commencer toxal hôpital bi defe naa ni coow lu bari du am inquiétude aussi du on est en train avocat la muy indi ay wax ay xalaat hôpital bi anam bi nga xam ne moom la ñu indi ay coppite yi oh, nga xam ne que ni mbir mi daal dafa mel ni de façon immédiate lañ ko defee maanaam dañu koy xëy rek benn jour bu ni kët ni jonn ñu daal leen xamal que ni ñoom hôpital bi dañ koy dañ koy quitté vraiment comme ni ngeen ko gisee bagage yi moom moo ngi continuer di dem ñu ngi roñ lépp loo xam ne bagage la fi loo xam ne bagage bu fi nekk la

ay lar rek nga fiy gis ak i bagage comme ni ngeen ko mën a gisee fii nii hôpital bi tout est fermé jéem a xool ba ci kaw xoolee fii ñu tudd service médecine interne bloc administratif même fii également boo xoolee mu ngi nduru ko ni amul nit boo xam ne moo ngi fi nekk li fi nekk daanaka ay ay matériel rek la voilà comme vous pouvez le constater fi nga xam ni moo di hôpital Aristide la daan teg ginnaaw bu nga xamee état bu Sénégal jël na décision que ni dañuy dindi lépp loo xam ni fi nekk la comme matériel lépp daal nay gën dem voilà comme vous pouvez le voir nga xam ne moo di hôpital Aristide la daan teg lépp daal nay génn boo xoolee presque ay matériel rek moo fi des ñi nga xam ne ñoo fi doon liggéeyee yor personnel bi daanaka génn na fii sax boo xoolee bureau la boo xam ni bon ki fi nekk mën nañ wax que ni génnagul wante bon mooy loolu en tout cas on va essayer de revoir grand yow daf nga ni génnagoo de ah. génnagoo de yaa ngi waaj waaw baax na kon voilà vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Le Dantec nga xam ni ginnaawu état bu Sénégal jëlee décision yi. day génne lépp lu fi nekkoon comme nit ngir ñu indi ay coppite ci li nga xam ni moo di hôpital bi mel na ni lépp génn na moo tax ñu fas yéene def le tour de l'hôpital xool néeg recevoir li ay bagage la yo xamni dafa wara dem voilà vous êtes en direct salaamaaleykum ça va je peux filmer voilà comme vous pouvez le voir vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar fi ginaaw bo xamee état du Sénégal jëna décision wax que lepp luy matériel dafiy lepp luy personnel bi fi doon liggéeyee dafiy jugee ça va je peux passer par là

salaamaaleykum. ça va jafe filmé s'il te plaît comme ni ngeen ko gisee ñun ñoom ñoo ngi génn génn seen ay bagages waaw naka ma ma génn du ma la génn ba mu gën a génn mën naa la jël wala. c'est pas grave yéen a ngi génn n'est-ce pas du ma la génn ba mu gën a génn loolu c'est pas grave. voilà comme vous pouvez le voir fii n'est-ce pas yéen a ngi génne bagage bi n'est-ce pas. waaw gisoo.

Voilà, vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, on va essayer de revoir autre part. Puis également. Vraiment, tout est parti, hein. les poudres. Nous les bagages Et puis, il y a des secteurs quand même. C'est sale, on va parler de Donc, maintenant, il y a des flaques qui l'hôpital, hôpital.

borom boutique bi moom mel na ni daan nay dindi marchandise am bépp bu mu fi amoon daal di dem bàyyi ko noonu taal ventilateur am bàyyi noonu dem voilà comme vous pouvez le na fi li nga xam ni mooy mouchoir à jeter bàyyi fi li nga xam ni mooy quelques bagages daal di génne boutique am daal di dem moom itam ak i njàmpeem maa njàmpe moom Basile war na cee soxla Basile moom xam naa ni ku la jox ci njàmpe ci sangu

on va essayer de, revoir autre part. voilà vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar ay couloir yu vide nga ne fi gis nit à part nga seen nit se xamni day démonter. da démonter parce que vous xolé que je ma ngay démonter Mom ma démonter ay bagages.

Je vais essayer de voir. C'est fermé également. Ça va ah? Je suis journaliste vais filmer ay séquences quoi ok voilà comme vous le voir y a matériel vous êtes en direct ici également, comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien du tout, tout est sorti. Vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Dantec de Dakar. On va sortir, on va sortir. Tout ça, c'est des matériels qui sont nekkoon boo xoolee hôpital actuellement ay couloir rek ngay gis amul lenn loo xam ni di nga ko fi gis loo xam ne day firndeel ni fii ab liggéey fi amandi parce que li fi nekkoon liggéey muy faju

recevoir ñii ñoo ngi demoon seen ay bagages te lépp ay bagages yu nekkoon fii la xam ne moo di hôpital Aristide la daan teg de Dakar. kii moom boutique la yoroon moom itam également daan di dindi ay bagages am di libéré boutique bi carrément mu nekk biir mooy loolu mooy tuxu maanaam tuxu moom dafa yéeme boo dee dem li ngay bàyyi si ginnaaw lépp day daal di xaw a ñàng xaw a ñaaw également. beneen secteur bi nga xam ni teg de Dakar secteur yëpp dañoo vide actuellement voilà voilà vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar xaaral ma ñëw xaaral

Amoutou dara Lo xamni dess na fi comme vous pouvez le voir vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Le de Dakar ginnaaw bo xamné état bi jël décision ñom ñëpp genn nañ boo xoolee milieu yi dafa wét n'y a plus rien du tout ay compartiment mo fi dess ay bagages des trucs vraiment comme vous pouvez le voir tout ça tamit boo xoolee kaw hôpital bi am na ay mbir yoo xam ne tamit méngoowul ak turu hôpital parce que boo xoolee am na secteur yoo xam ne laaj na ab liggéeyaat ay miir yu xar tout di tamit méngoowul ak xar kanam hôpital boo xam ne dañ fiy fajoo peut-être sax ñu jël décision daan ka ni dañ koy indi ay coppite mais tamit anam bi ñu ko jëlee moo metti ñu bëree bëri fa tax na bon indi woon na ay coow mais bon ñu des lépp

ni ngeen ko mën a gisee hôpital bi ñëpp génn nañ mu dara loo xam ni des na fi man sax parfois damay xaw a ragal <laughs> mais nag bon comme ni ngeen ko mën a gisee hôpital bi daal mën na ni ginnaaw bu état bu Sénégal jëlee décision daal di wax que ni ñi fi nekk nañ génn vraiment ñi fi nekk ñëpp génn nañ daal di libéré hôpital bi chambre boo dem doo fekk nit presque ay benn benn nit moo fi des see xamal na leen jox nañ leen décision que ni tey le soir lañ war a génn ginnaaw buñ génnee nag dañu wuti feneen foo xam ne di leen fa dem. Voilà, tout est vide, comme vous pouvez le voir. En direct de l'hôpital le Dantec de Dakar, sur la M7 Active. Tout est vide. il y a des ne nekk def ay ay truc bon à gilet y a pas y a personne vraiment c'est nga xam ne ñoo fi doon liggéey nag ñoom li ñu xamle mooy ñoom ñu bari ci ñoom li nga xam ne moo di hôpital bi moo leen doon fay mais voilà comme ñii xam ne ñoom lañ sant ñu dindi affaire yi ñoom ñoo ñu ngi ci liggéey bi. voilà vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar <laughs> ñëwaat naa de. dikkaat naa comme ni ngeen ko gisee fii tey bureau la kii moom soxna si ku fi liggéeyee moom xam naa ne demagut wante moo ngi waat yaa ngi waat nest moo ngi waat yàlla leen yàlla mayaat bërëb bu gën bi yal leen yàlla jàppale comme ni ngeen ko gisee fii tamit également ñi fi nekk ñoo ngi wàcc xam naa ñu ngi ci dernier réglage yi pour génn dem xool faneen foo xam ne dinañ fa mën a suturloo comme ni ngeen ko gisee hmm? yàlla baax na ici également

da ngay able hôpital yi maanaam da ngay génn en attendant ñu am ay fan wala ay weer yoo xam ni dañ koy defaraat jox ko beneen xar kanam boo xam ni dina gën a mucc ayib dina gën a niroog li nga xam ne moo di hôpital waral ñu ngi que tamit bu ñu xoolee kon ni mu leen koy waxee hôpital yi bari na secteur yoo xam ni dafa xaw a yàqu mbir yi dafa xar donc peut-être mën nañ wax que ni loolu bokk na ci li nga xam ne ci leen basé wu ba jël décision que ni dañuy Dani, dañuy réhabiliter li nga xam ne hôpital comme ni ko vous êtes en direct l'hôpital Aristide de Dakar voilà tout. tout. Vous voyez, comme si bon comme vous l'avez lépp dem na nga xool siège ci kaw bureau tout ça dalay wan que ni fii liggéey amatu fi ay bagages yu jaxasoo ay seringues tout ça vraiment hôpital sida dante de Dakar nii la ay mbir yu yéeme yu doy waar nga xam ni ñoom ñu fi doon liggéey dem nañ vraiment bàyyi fi matériel bi matériel bi ci lañ jublu di ko génne ay benn benn personne moo fi des ici également. moo ngi dem couloir vide en direct de l'hôpital Aristide Le de Dakar Il n'y a plus personne Il n'y a ñëpp de nañ lii tamit boo xoolee da lay wan ay defaraat laaj na ci hôpital bi vraiment ay secteurs yoo xam ne ni mel daal ñaaw na peut-être moo waral ñu xam ne ni dañ ci indi ay coppite vraiment tout est vide tout est vide en direct de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar sur la M7 Actu. comme ni ngeen ko gisee ñoom ñi nga xam ne lañ sant ñu andi ay coppite ñu ngi yab bagage yi di ko yóbbu vraiment ni ngeen ko gisee bagage yi koy yab di ko voilà. Fat, c'est bon. Ça va, loolu la leen andiloon ci li nga xam ni mooy hôpital Aristide la daan teg de Dakar nga xam ni ginnaaw bu état bu Sénégal jëlee décision gën képp ku fi liggéeyee na nga quitter les lieux maintenant na ni nit daan nañu appliquer lors nga xam mooy décision boobu maanaam actuellement ay matériel lañ ñoo fi des des lépp dem na. partian hein. lépp pour demain presque voilà comme ni ngeen ko gisee amul ben sedd na de amul amul ben compartiment boo dugg fekk fa nit boo xam ne day faju wala lu ni mel bu amee ay benn benn la te ñoom jox nañ leen ultimatum maanaam di d'ici le soir lañ war a quitter les lieux daal di wuti faneen foo xam ni dinañ fa dem comme ni ko mën a ñoom am comme li may wax hôpital bi dafa bari ay secteur yoo xam ne c'est le désordre total dafa miiru miiru toj xoosu mën nañ wax kañ daal lu ci ëpp loolu peut-être moo tax ñu indi war ci indi ay réhabilitation wante tamit

parce que fadi mom dafa nek lo xamné ne ta a ñàkk rew voilà même ici également comme vous le gisee tout est vide Vous lenn lo xamné ne na fi c'est c'est sombre et euh, voilà comme vous ngeen ko gisee xaaral ma taal mon flash si c'est possible voilà vous êtes en direct de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar avec vraiment une mauvaise odeur aussi. Je vais sortir. Hein. comme ni ma leen gisee dafa di vide carrément ñëpp génn nañ. voilà ay chambre yu vide moo fi nekk ay lal yu y a plus rien du tout. ñu wax voilà am na secteur yoo xam ne boo fa duggee nuruwul hôpital parce que c' est tellement sale yàqu carrément donc mën nañ wax que ay genre mel lii moo il faut que ay coppite parce que hôpital tamit waxtaan wax dëgg ca la day am xar kanam boo xam ni ku ko gis nawloo ko wala dara parce que fu ñuy fajoo dafa war am ci ayib comme ni ngeen ko gisee. am secteur yoo xam ne moom nurul hôpital dara dara dara dara ñaaw na salte na donc ay coppite mënu cee ñàkk tamit. wante li metti ñu bari moy anam biñ ñu ko defee maanaam xey xey jël décision que ni ñi nek ci hôpital bi dañuy quitter dañuy indi ay changement peut-être lolu mo leen metti mais hôpital boo duggee ba ci biir bi da ngay xam que ni laaj na coppite vraiment laaj na ay changement parce que ni mel desi naa ndurug xar hôpital deug deug parce que amna ay secteur yo xam ne la fa nek mara day tali vraiment ay miiru xar c'est grave daal voilà, on est à la sortie. On est actuellement à la sortie de l'hôpital Aristide Dantec de Dakar. Voilà la porte. Voilà la porte. L'on le en indiloon il a M7 actif. vraiment comme vous il a Il di a jox dig vraiment là a été très très impressionnant bon on va essayer de sortir prendre. Sonuca bakıyoruz.